la ca des nag mooy yirub toxal toxal nag mooy mën naa am mu jële ko ci cëram ba ëpp yóbbu ko ci cër bu gën a tuuti booba mën naa am itam mu daa doon ci cër mu jële ko ci doon ci cër yóbbu ko ci doon ci xaaru des ak safaan ba itam nag mu daa doon ci xaaru des mu jële ko ca yóbbu ko ci doon ci cër yooyu yëpp nag dana ko teqale amma xajbul isxaati daal yiruk rotal balaa yal xaq du yéeg man ka nga xam ne yun sa bu def na ko askan ilal mayiti jëm ci néew ba bi nafsi yi ci boppam kal banina ni ay doom yu góor wal banaati ak ay doom yu jigéen wal abaay ak baaya wal ummahaati ak yaaya wa man ak nga xam ne fii maanaahum nekk na ci seen maanaa azawja jëkkër wa zawjata ak soxna nee na yiruk teekoo doon bu wér-wér moom am na ñoo xam ne kenn mën leen koo def am na ñoo xam ne kenn mën leen a daaneel bu wér-wér amuñu dara dara doom moom kenn mënu koo tee doon muy doom bu góor muy doom bu jigéen ndey ak baay kenn mën leen a tee doon bu wér-wér jëkkër jabar itam noonu la faaw rek ñu doon ñi moom mënees naa wàññi seen doon rek xëy na waaye mooy ñoo ñàkk doon wayal xaqu dana yéeg man xadaahum kudul ñoom soo ko seewee su ñii nag muy doom moo xam góor la moo xam jigéen ak ndey ak baay ak jëkkër ak jabar ku bokk ko ñii rek mënees na ko daaneel ba du amati dara dara ci misaal fabnul ibni doom bu góori doom bu góor yax jubu fa dana koy yiir al ibnu doom bu góor sët bàyyi ko ci doom bu góor bu doom bu góor xasee am rek jeex na sët du doonati wal jaddu maam mu góor yax ju bu dana ko yiir al abu baay maam ji góor bu fi bàyyi xasee nekk jeex na maam mu góor du doon du doonati wal ixwatu mbokk ya mutlaxan ak lu ñu mën di doon yax ju bu dana leen yiir al ibnu doom bu góor wa bunu foo ak doom bu góor doom bu góor wa in safala ak doonte suufi woon na wala abu ak baay jàppal ni mbokk yi moom yépp yam bu fekkee doom bu góor am na menn mbokk du doonati su sët bu góor amee itam menn mbokk du doonati baay bi nga xam ne mujjul ko faatu bu fa nekkee itam menn mbokk du doonati wa banul ixwati doomi mbokk ya yax jubuxum dana leen yiir aabaahum seeni baay wa man ak nga xam ne yaxjubuhum daana yiir seeni baay doomi mbokk yi bu fa seeni baay nekkee muy mbokk ya kon ñoom doomi mbokk ya duñu donnati ba tey ka daan daaneel seeni baay te mooy baay dëgg-dëgg ak doom ju góor ak sët bu góor ba tey bu fa nekkee kon doomi mbokk du donnati wal jaddu ak maam mu góor ba tey nag maam mu góor day daaneel doomi mbokk maam mu góor mënta daaneel mbokkum ndey ak baay ak mbokkum wàllu baay mën naa daaneel nag mbokk ci wàllu ndey dong waaye nag doomi mbokk yi nag moom buñu fi taseeg maam mu góor maam mu góor moo leen di daaneel maam mu góor mooy doon doomi mbokk yi ñoom daanu wal xam mu bàyyi tax yax ju bu fa dana ko yiir banul ixwati doomi mbokk yu góor ya waman ak nga xam ne yax ju bu fu mu daane leen yiir bàyyi bu ndaw balaa doon ngay wax ne doom bu góor nekku fa sët bu góor nekku fa bàyyi nekku fa maam bu góor nekku fa mbokk nekku fa doomi mbokk nekku fa bu fekkee seet nga ñi kenn amu fa rek la bàyyi bu ndaw door a doon waaye su fekkee ne mbokk am na sax mbaa doomi mbokk bàyyi bu ndaw du doonati boobu nul xam mi doomi bàyyi tax yax jubu fa dana ko yiir aboofu baayam wa man ak nga xam ne yax ju bu xoo daana yiir baayam li mujj wax daal mooy doomi baay bu ndaw bu fi baay bu ndaw nekkee du doonati moom doomi baay bu ndaw baay bu ndaw boobu mooy doon ba tey ñi daa jiitu baay bu ndaw tey daaneel baay bu ndaw bu ñu fa nekkee xam nga ne kon doomi baay bu ndaw du doonati wa banaatul ibni doomu jigéen doom bu góor ba yax ju bu xun na dana leen yiir alwaaxidu kenn ka min zukóori wala di sulbi ci góori doomi ndigg sët yu jigéen yi la wax ne bu benn doom bu góor xasee am rek jeex na amul benn sët bu jigéen buy doonati ci gàttal rek mën nga ne bu doom bu góor amee amul benn sët buy doonati muy góor muy jigéen a ci am walis na taani ak ñaar fasaayi dan topp lu ko ëpp min banaati sulbi ci doomi jigéen yi ndigg illa an yakkoon nam dara bu dafa nekk maxaw na di ànd ak ñoom zakarun góor fa yu xasibuhunna te mu leen di asaballoo fa yakkoon tey nekk laxoo di ko ñeel wala xun ak ñeel leen maa la nga xam ne baq ya des na xan fardil banaati ci gannaaw cërub doomi jigéen ya li zakari ñeel na góor ga bis lu xasdil unta yéeni kem cërub ñaari jigéen daa wax ne sët bu jigéen bu fekkee doomi jigéen yi mat na ñaar bay jël sulusaani sët bu jigéen bu dee kenn ak mu ab lima ci yemoo ndegam ànduñoo góor rek dañuy ñàkk su doomi jigéen digg xasee mat ñaar bay doon sulusaani kon sët bu jigéen bàyyi ko doom ji góor muy kenn mu ëpp kenn ñoo ci yemoo bu ca góor àndut ñu jigéen kese dañu ñàkk buñu am dara buñ fa nekkee góor ne ñoom nag daal di jël si la fa des la fa des ab sulus lay doon daal di koy séddoo góor ñaar jigéen benn kon man ngaa jàpp ne bu fi doom jigéen diggi nekkee te limu ab benn da ngay faral ci ñetti xaaj ñoom ñu teggi ñaar muy sulusaani mu des benn muy sulus léegi nag sët yu jigéen ya bu fekkee ànd nañoo góor duñu am dara bu fekkee ànd nañoo góor nag daal jël si benn boobee des séddoo ko góor ñaar jigéen benn wal axawaatu mbokk yu jigéen ya lil abi ñeel wàllu bàyyi yax jubuhunna dana leen yiir ashaqiixu benn xarit bu góor wa shaqiixataani ak ñaari xarit yu jigéen faak saru topp lu ko ëpp illaa an yakkoona dara bu dafa nekk maxahunna di ànd ñoom axun mbokk li abi ñeel wàllu bàyyi fa yu xasibuhunna te mu leen di asaballoo fa yakkoonu tey nekk lëxoo di ko ñeel moom mbokk mu góor ma wala hunna ak ñeel leen ñoom it maa la nga xam ne baqee des na xan fardil axawaati ci gannaaw cërub mbokk yu jigéen ya ak ashiqaay ña di way bokk néew ba ndey baay mooy ña di ay xarit li zakari ñeel na góor ga mis lu xasdil unsayni kem cërub ñaari jigéen ña bokk néew ba ndey baay di jigéen ñu xasee mat ñaar ba jël sulusaani kon mbokk yu jigéen yi bokk néew ba bàyyi dong dong suñu ànd te góor buñu am dara buñu ànd ak mbokkum góor ni ñoom nag daal di jël si la des séddoo ko góor ñaar jigéen benn misaal bi mooy ki faatu bu fi bàyyee lu mat ñaari mbokk yu jigéen yu mbokkal ndeeg bàyyi mbaam ëpp ko da ngay faral ja ñetti xaaj bu ko defee ñoom ñu teggi ñaar muy sulusaani mu des benn muy sulus léegi nag mbokk jigéen yi bokk ak ki faatu bàyyi dong bu fekkee góor andu ca kon dañuy ñàkk duñu am dara bu ñu àndee góor nag daal jël benn boobee des seddoo ko góor ñaar jigéen benn wal axawaatu mbokk yu jigéen ya ak ashiqaaw ñari ay xarit yax jubuhunna dana leen yiir al abu baay wal ibnu ak doom bu góor wabnuhoo ak doom bu góor yi doom bu góor mbokk jigéen yi bokk néew bi ndey ak bàyyi la ne bu fi bàyyi nekkee ñoom ñëpp daanu nañ bu fi doom bu góor nekkee ñoom ñëpp daanu nañ bu fi sët bu góor nekkee ñoom ñëpp daanu nañ waaye mën ngaa jàpp takk-takk bi gën a gaaw rek mooy bàyyi ba nga xam ne mujjul ko faatoom bu fi nekkee mbokk yëpp yëpp ay daanu muy góor muy jigéen ak lu ñu mën di bokk ak ko faatoom ba tey bu fi doom bu góor nekkee mbaa sët bu góor noonu la mbokk yëpp yëpp yëpp ay daanu amul menn mbokk mooy tuddati ak lu mën di bokk ak ko faatoo wal jaddaatu maam yu jigéen ya min ay jihatin ci guma ci wàll kunna lañu nekk bil ummi danañu daanoo ci ndey dafa ko wax yes xott na bil ummi maam yu jigéen yi moom ak fu mën di féete rek bu yaay xasee am jeex na menn maamu jigéen du doonate kon rek mën ngaa takk ne maam mu jigéen mu mënti doon mu féete ci wàllu ndey ak mu féete ci wàllu baay ñoo ci yemoo su fi yaay nekkee rek menn maam mu jigéen du donnati wa tasqutu dana rot aljaddatu maam mu jigéen ma allati ma nga xam ne min jihatil abi tukkee na ci wàllug baay bihi ci amug baay maam mu jigéen ma nga xam ne nag moo féete ci wàllug baay bu fa baay nekkee moom du donnati bàyyee doon du tee nag maam mu jigéen ma féete ci wàllu ndey moom doon wal mawla sang ba al mu'tiqu kay aji goreele yaxjubuhu dana koy yir xasabatu nasabi way asabaali askan wa mbaa nga ne geñog askan wa ka nga xam ne moo gareeloon kooka moom kilifteef ga la koy taxa doon mooy kenn ku mën a jeexal alal bañ faa nekk waaye su fekkee ne ka faatu bàyyi na ku mën a jeexal alal ki doom bu góor mbaa sët bu góor mbaa baay mbaa maamu góor di wéy su boobaa moom ko goreeloon du am dara dara dara su fekkee nag bàyyiwul kenn kenn ko war a doon moom kookee mu goreeloon kon moom it goreeloon mooy doon lépp lépp bu fekkee day bu fekkee ba tey ñay doon bu ñu doonee mu des ba tey kon mooy jël des wa wa amma xaj bu naqli ndaal yiruk toxal nag fa salaasatu aqsaamin ñetti xaaj la yiruk toxal moom nee na ñetti xaaj la al awalu bu njëkk bi naqlun moo di ak toxal min fardin bàyyi ko ci ab cër ilaa fardin jëm ci ab cër duuna foo bu ko yées bu njëkk bi mooy toxale ko ci cër bi yóbbu ko ci bu ko gën a tuuti waxuwa moom nag muxtasun lu ñu jagleel la bi xamsati asiyaa ci juróomi yëf kooku nag juróom yi lay amee al ummu ndey yan xuluhaa dana ko toxal al wala du doom mutlaxan ak lu mu bandi doon min ak tullu si bàyyi ko ci ceer ila suddu si jëm ci suddus wa wala du ibni ak doomi doom mutlaxan lu mu mandi doon wal isnaani ak ñaar fa saay dan topp lu ko ëpp min al ixwati ci ay bokk yu góor wal axawaati ak ay bokk yu jigéen mutlaxan lu mu mandi demee man ngaa tàmbalee ci ndey ndey su doom nekkee mbaa sët mbaa lu mat ñaari bokk day bàyyi cërëm ba nga xam moo gën a duun te mooy ab ceer ñëw ci cërëm bu gën a néew te mooy suddus ab juróom-benneel fi toll nii sulus moo ñaar ca suddus ndey nag fekkee doom am na mbaa sët mbaa lu mat ñaari bokk day bàyyi sulus ab ñetteel ñëw ci sudus ab juróom benneel wa sawju jëkkër yan xuluhoo dana ko toxal al wala du doom wa wala duhoo ak doomam ja mina nis fi bàyyikoo ci genn wàll ila ruub yi jëm ci kaar ndey rek nga weesu woon nga teg ci jëkkër jëkkër cëram bi gën a duun mooy genn wàll la koy jële ci nisif yóbbu ko ci xaaju nisif xaaju nisif mooy kaar la koy jël ci nisif yóbbu ko ci kaar mooy fa doom nekkee mbaasat bu doom xasee mbaasat rek jeex na jëkkër du amati genn wàll ab rubbum ab kaar lay am wa zawjatu soxna it yanquluhaa dana ko doxal min na rubbum bàyyi ko ci rubbum ila sumuni jëm ci sumun man ka nga xam ne yanqulu daana toxal az zawji jëkkër doom mbaasat ma nga waxan ne mooy tax jëkkër bàyyi genn wàll ñëw ci kaar ba tey rek jàppal ne doom ak sët ba tey ñooy tax soxna bàyyi ko ci kaar muy cër bu duum ba ñëw ci sumun muy cër bu néew ba fi toll ni kaar moo ñaar ca sumun wa banaatul ibni doomu jigéen doom bu góor ba yanqul dana toxal alwaahidata benn ba min hun na ci ñoom andi nis fi jële ko ci genn wàll walis na tey ni dana toxal ñaar ña faak sa da topp lu ko ëpp xani sulusayn jëlee leen ci ñaari sulus alwaahidatu benn doom bu jigéen fawqahunna bu nekk ci seen kaw fay aqus na te ñuy jël as sudus ak sudus dangaa waxaan ne sër bu jigéen bu dee benn day am genn wàll waaye jàppal ne bu doom bu jigéen digg xasee am sër bu jigéen day bàyyi genn wàll ga te am ab sudus ab juróom benneel ba tey da nga ne woon sët yu jigéen yi bu ñu xasee am benn te góor raxu ca dañuy am ñaari ceer muy sulusaani waaye jàppal ne bu doom bu jigéen xasee am dañuy bàyyi ñaari ceer ña te am rek sudus bu doom bu jigéen amee genn wàll ñoom ñu teggi sudus wal axawaatu mbokk yi jigéen ya lil abi ñel wàllu bàyyi yan xuluhunna dana leen toxal ila sudus jëm ci sudus al uxtu mbokk mu jigéen ak shaqiqatu bu di ab xarit mbokk mu jigéen ci wàllu bàyyi da nga ne woon bu dee menn genn wàll lay doon bu ëppee menn sulusaani waaye loolu lépp nag day fekk rek mbokk mu jigéenum ndey ak bàyyi bañ faa nekk waaye bu fi mbokk mu jigéenu ndey ak bàyyi nekkee mbokk mu jigéen ma ci wàllu bàyyi moom bu dee kenn sudus lay am bu ëppee kenn itam ñu bool leen rek sudus nga xam ne kon miraas moom da nga koy juróom benn xaaj ka bokk ak moom ndey ak bàyyi teggi genn wàll ka bokk ak moom bàyyi dong tey jigéen nag baa bu ëppee kenn teggi benn muy sudus su ko defee alal ji des ñaar ndax juróom benn la te ñeent moo ca dem ñaar ji dañuy xaar ñuy xaar des rek ñu jël ci ko al qismu xaaj ba attaani bay aji ñaareel an naqlu mooy toxal min attensi bi bàyyikoo ci asabaal il far bi jëm ci doon ak cër wax wate moom muxtasun luñ jagleel la bil abi ci bàyyi wal jaddi ak maamu góor fayan xuluhuma dana leen toxal al ibnu doom bu góor wab nu ak doom bu góori doom bu góor ila sudusi jëm ci sudus xaaj ñaareel bi ci lim tuddee yiru toxal mooy ku daan xaaru des boo wéetee jël lépp boo nekkee borom cër yi xaar cër yi dem nga jël des wa ñu jëli la ca loola nag yóbbu la ci teggi ab cër rek nga teggi dem te doo ca mën dara loolu nag ñaar lay dal baay ak maam góor baay ak maam nga ne baay bu fi nekkee moom dong lépp lay doon maam bu góor itam noonu bu fa nekkee moom dong lépp lay doon su fekkee doom bu góor amut sët bu góor amut yeneen waroom yi cër ñoo fa am kon muy bàyyi wala muy maam bu góor dañ koy jox ab sudus bu téye bu desee ñu dolli ko ko xam ne sudus ba ma ngi ko doon ci ab cër lañ ko dolli ma ngi ko doon ci asabaal waaye nag bu doom bu góor xasee am mbaa sët bu góor moom jeex na muy bàyyi muy maam bu góor ku ci man doon ab cër rek lay tegg muy sudus daal dem dara dara du ci yokku kon jàppal ne bàyyi mbaa maam ju góor bu doom góor xasee mbaa sët bu góor jeex na ku man doon ci ñoom ñaar ab sudus ab juróom benn lay tegg rek daal dem amul lu ci yokku dara dara alxismu xaaj bi ak taalisu bi aj ñetteel ak naqalu mooy toxal min fardin bàyyikoo cib cër ilaa taasibin jëm ci asabaal waxoo moom nag muxtasun luñ jagleel la bil banaati ci doom jigéen diggee wa banaati ibni ak doomu jigéen doom bu góor ba wal axawaati ak mbokk yu jigéen ya ak ashiqaa yi ñari ay xarit wal axawaati ak mbokk yu jigéen ya dil abi ñel wàllu baay fa inal banaati naka doom jigéen diggee yu farabu def na dogal lil waahidati ñeel benn min hun na ci ñoom idan faradat ndem wéet na an nis fu genn wàll walis na tey ni daañu dogalal ñaar ña fasaay dun topp lu ko ëpp ak tulusaani ñaari tulus waaye wa isaakaana ndem nekk na laxun na di leen ñeel axun mbokk lam yaris na duñu donnati bi sihaami ci ay cër wa yaris na dañuy donn rek bi tansi bi ci asabaal nee na xaaj ñetteel bi ci xeeti toxal yi mooy rek toxale ko ci ak cër yóbbu ko ci xaar aw des loolu nag ñi muy dal mooy doom jigéen digg yi ak doom jigéen doom yu góor yi ak mbokk jigéen yi bokk néegu ndey baay ak mbokk jigéen yi bokk néegu baay doom dangaa waxam ne benn doom bu jigéen digg bu dee moom dong genn wàll am su ëppee benn waaye góor raxu ca ñu jël sulusaani kon loolu xam nga doon cër la woon léegi nag bu doom bu góor ni ñoom amee nag dañuy daal di bàyyi cër ba ànd doom bu góor ba su fekkee ñoom dong ñoo fa nekk ñu jékki-jékki séddoo góor ñaar jigéen benn su fekkee nekk nañ fa ak borom cër ñu bàyyi ba cër yi génn ñu séddoo ci des góor ñaar jigéen benn wakka saani ki ni hukkumu banaatul ibni atteb doom jigéen doom bu góor ba isas taxaqay na ndem yeyoo nañu al wirasata doon sët bu jigéen bu dee benn da nga ne woon genn wàll lay doon bu ëppee kenn waaye góor raxu ca ñu am sulusaani jàppal nag ne bu sët bu góor amee ne ñoom dañu daal di bàyyi cër ba te asabaal asabaal mooy bu dee ñoom donga ñu daal di séddoo góor ñaar jigéen benn bu fekkee ne waroom cër am na fa ñu génne cër yi ba noppi ñu door a séddoo góor ñaar jigéen benn ba tey wal axawaati ak mbokk yu jigéen ya al ashiqa ñi di ay xarit wal axawaati ak mbokk yu jigéen ya til abi ñel wàllu baay maxa xadamil ashiqa yi ànd ak ñàkkuk xarit ya ba tey mbokk mu jigéenum ndey ak baay bu dee menn da nga ne woon genn wàll lay am bu ëppee menn te góor raxu ca ñu am sulusaani ñaari ceer waaye jàppal ne su mbokk mu góorum ndey ak baay xasee am rek dañu daal di asabaal te bàyyi ci loolu mooy bu dee ñoom dong ñu jekki-jekki séddoo góor ñaar jigéen benn bu fekkee nekk nañ fa ak boroomi cër bàyyi cër yi génn daal di door a séddoo góor ñaar jigéen benn boo ñëwee ba tey ci mbokk jigéen yi nga xam ñoo bokk néew bi bàyyi itam da nga ne woon bu dee menn mu jigéen ma genn wàll lay am su ëppee menn ni ki ñaar mbaa ñett waaye góor raxu ca ñu am sulusaani waaye jàppal ne mbokk yu jigéen yi ci wàllu baay ba tey bi ci góor xasee rax muy mbokkum góor ci wàllu baay dañu daal di asabaal asabaal mooy bu dee ñoom dong ñu jekki-jekki séddoo góor ñaar jigéen benn bu fekkee waroom cër am na fa ñu bàyyi cër yi génn ñu door a séddoo góor ñaar jigéen benn faslon yem naxu dana tere al miraasa doon nga ixtilaafu diini wuuteg diine bokk na ci yittee doon bañ a bokk diine faaw dañuy bokk diine mooy tax ñu doonante nga xam ne falaa tawaaru sa diir ak doonante bay na muslimin diggante ab julit wa kaafirin akut yéefar wala bay nal yahuudi yi du caagin diggante ab yahuud wan nasraan yi akum nasraan bu kee dee julit kee di bi yéefar kenn du ca doon sa moroom ak lu ñu jegee jegee bu kee dee yahuud kee nasraan ba tey kenn du ca doon sa moroom wa riqu akum njaam fala yorisu du doon a raqiqu jaam ba wala yuurasu te def ko doon wa maa loo xam ne maata faatu na xan xu bàyyi ko gannaaw fa huwa moom li maaliki yi ñeel na aji moomam ja ak njaam ba tey day tee doon ab jaam ci boppam du doon te it deesu ko doon moom it mel ne tey ku faatu woon bàyyi doomam joo xam ne ab jaam la ak sëtam boo xam ne gor la sët baay doon te doom ja du doon jëmmi jaam ci boppam nag moom su fekkee moo faatu ka ko moomoon ba muy dund ba tey mooy moom alalam rek mu daal di jeex xam ne kon jaam moom du doon te it kenn du ko doon wal xatul akuk rey déetu dono fala miraasa déetu dono li ma ñel ka nga xam ne xatala rey na mu war risaxoo aji doonalam ja xam dañ ci tey da ngay defee nañu jàng mu war rasa xoo isma fool mooy gën a yell ci baat boobu waaye ñoom ñu jàngale miraas dañuy kasara raagi def mu war risa xoo xam dañ ci tey maanaam ku war a doon nit waaye dangaa wëlbatiku rey ko te tey ko jeex na dañ lay xañ doona ba ne la ndegam yaa ko rey te tey ko doo ko doon ci alalam doo ko doon ci diye ji ci yoonu maal nag moom bu fekkee da ko rey reyum ñàkk tey du doon ci diye ji waaye dana doon ca jëmmi alal ji ci boppam wanti faawu nasa bi ak dàqub askan wa bi lihaani ci rëbbonte fayan xatixu dana dog ak tawaarusu doonante ga baynal mulaahi ni diggante aj rëbbonte ju góor ja wal walad ak doom ja faqat dong bokk na ci yi tax duñu donante góoru jigéen rëbbonte ci kanam yoon rëbbonte nag la koy waral mooy soxna sa am doom góor gëne juru ko mbaa góor gëne sama soxna si kat dama koo gis muy njaaloo soxna sa weddi ko ñu waat kon ba kenn ko ñu waatoo ko ci kanam yoon ba kenn ku ne waat su boobaa dañ leen tàggale duñ séeti mukk mukk mukk léegi nag góor bu rëbbonteeg soxnaam kon wet doom ji waat ne juru ko jeex na moog doom joojee mu waat ne juru ko ba tàggoog yaayam duñu donnanteeti mukk mukk nga xam ne doom ja yaayam joojee lay donnanteel ak ñam bokkal ndey waaye wàllu askanu bàyyi moom dagg na ba set wecc wastibhaamul mutaqaddimi ak lëmu kan mooy aji jiitu wal mutaaxiri ak kan mooy aji mujj fil mawti ca faatu ga kama isa maata niki ndem faatu na aqaaribu ay jegeñaale taxta hadmin ci ron ak mabbu masalan ci misaal nee na balaa kenn doon morom ma dañu xam ne kii moo njëkk a faatu kii mujj a faatu waaye bu fekkee xamuñu kan moo njëkk a faatu ak kan moo mujj a faatu niki ab tabax daañu seen kaw rek ñu fekk leen ñu faatu mbaa ñu faatu ci accident oto wala avion mbaa saxaar mbaa leneen ñu fekk leen ñu faatu waaye xamuñu kan moo njëkk a faatu ak kan moo mujj a faatu kon dañu mel ne ay jaambur kenn du ca doon sa moroom ak lu ñu jege jege bu ñu xamee na ne kee moo njëkk a faatu gannaaw ba keneen door a faatu nag moom ka mujj a faatu dana doon ka njëkk a faatu. albaabu lii mooy buntu bi alhaadiya xashara bi aji fukkeel ak benneel fi bayaani jumalin ci leeral ay mbooloo min al faraidi ci ay farata wa sunani ak ay sunna wal aadaab ak ay teggiin taalifkat yi aada woon nañoo def noonu bu ñu demee ba ci mujjug téere ba ñu andi ca bunt boo xam ne dañ cey wax ay mbiri mbir yoo xam dañoo bokkut te ñëwuñu woon ca la nga weesu ca téere ba am na ci it ñuy baamuwaat lañ waxan ci biir téere ba gàttal ko ndax mu yomba takk moom nag masal yi wax fii amutoon ci biir li nga weesu ci téere bi ci wàllu yoon nag moom la yoon di santaane benn mu ne loola mënta ñàkk daa war faaw rek jullit bi war koo def loolu moo tudd farata mbaa waru gaaf bu fekkee nag loola yoon da koo santaane te bëgg lool ku ko def waaye taxul nag mu àgg ci waral ko waaye daal moom sàkku na ko lool lool loolu moo tudd sunna bu fekkee yoon santaane na ko nag bëgg na ku ko def waaye àggul nag ci dëgëral santaane ba lool lool moo tudd lu ñu sopp mbaa teggiin da koo tudde fii nag moom teggiin kon bunt bi da cee bëgg a boole yenn farata ak yenn sunna ak yenn teggin waye tahayyanu dana ràññiku alal muslimi ci ab julit ay yu'mina mu gëm bi anna allah ci naka yàlla ilahum buur la waahidun bu di benn laa sharika amul jenn aji bokkaal laxoo ñeel ko fi mulki ca nguuram nga wala nawira te dem dend laxoo di ko ñeel fi sifatin ci aw melo min sifatil uluhiyati ci meloy nguur ab julit day gëm ne yàlla rek kay yàlla lu bokkut ak yàlla it yàllaa ko sàkk mu dib jaamu rek waaye yàlla amul moroom amul kunroog moom dara dara dara meloom yi moom rek moo ko mel turam yi moom rek moo ko tudd moom rek mooy yàlla lu bokkut ak moom rek di ab jaam bu mu sàkk wa ya'lamu te muy xam ne anna li jami'il mawjudaati naka ñeel na mboolem yi am a ñeel na mboolem mbindee fi xaali xan aji sàkk muy aji bind huwa joo xam ne moom waajibul wujjoodi aji war ak am la maanaam ak amam mënta ñàkk azaliyun kojub càyyi la kojub càyyi la mooy deliwul fenn abadiyun te kojub dappet la mooy deemu fenn hayyun te aji dund la bi hayaatin ci ak dund qadirun te aji attan bi qudratin ci kàttan muridun te aji namm bi iradatin ci ak coobare mooy ci ak nameel alimun te aji xam bi xilmin ci xam-xam samihun te aji dégg bi samin ci dégg basirun te aji gis bi basarin ci gis mutakallimun te aji wax bi kalaamin ci wax ab jurit day gëm ne mboolem mbindeef yépp yépp mooy lépp lu am rek yàllaa ko amal la mën a am te amut sax yàllaa ko ñàkkal ba amut moom yàlla mi sàkk nag moom moom rek mooy koo xam ne ak amam mënta ñàkk lu bokk te moom ak amam jaayis rek la yàllaa ko amal ca gannaaw ba yàlla nag daliwul fenn te it dem fenn te it amee na dund ka yell ca moom amee kàttan goo xam ne dara dara tëwu ko amee coobereem joo xam ne ci lay jëfe kenn du ko forcé dara du ko rëcc am amee xam-xam boo xam ne mooy yell ca moom muy xam lépp ba nopp lu ne mu xamee ko nam doone amee dégg ba yell ca